lu tolloog lu ëpp huit milliards. bon nouvelle bi day vraiment amul surprise daal. dañ mënoon xaar c'était c'était juste une question de formalité. et question de lu ne nga def ko mais. tuumaal mhm. bi daa daa gisoon naa tey ñu xëy naan euh, mi ngi def lépp pour éviter la prison. waaw ah, daa déet nit moom buñ la jàppee tant yaa ngi ci garde à vue euh, am nga chance ñu bañ la yóbbu médiation pénale am na fi mais médiation pénale des mbir bi dina rëy rëy boo xamante ni même boo ko doon teg duñ la duñ la nangoo faale américain bi PFDD le PFDDA américain mais ay milliards de dollars la ay millions de dollars la teg ci table bi pour caution gars yi ne ko mukk <laughs> du ci dal bi rek te bu doon bu ñu nangu woon gëm naa ne bu ñu leen wax bu ñu ko waxoon dix million de dollars mhm. bu nangu woon bu justice américaine bi nangoo ñu teg ko ci table bi pour ñu bàyyi ko mhm. mais loolu boo amee day mel nii da ngay jënd sa liberté quoi ñooy mhm. jënd sa liberté parce que boobaa kon day mel nii borom alal yi moom mën nañ def toj toj rek après ñu génnee caution ñu bàyyi la ñuy libi donc loolu je pense que justice bu Sénégal aussi euh, nit bu ñu la jàppee am nga porox ndoll boo xamante ni da ngay essayer ba pour nga échapper prison maintenant nag quand tu fais tout que sottiwul ki nga xamante moom mooy yóbbuwaate moom bu jàppee ne vraiment lu mu am moom mhm. euh, bu dee yoon rek lay appliquer yoon permettre ko mu sukkandiku leneen du loolu te loolu moom lu mu joxe rek mooy waa jii nii incriminé waa ji inculpé rek moo mën a nekk moo mën a sotti. te bu dee yow danga nga koy inculpé mooy xam nga ne jàpp nga ne place am du ci biti. donc mm. kaso la donc je suis obligé de signer le mandat de mandat de dépôt amuloo choix maintenant nag lu ñu ko dossier bu ñu ko tuddal ah dossier boobu dafa sensible de. parce que des fois <laughs> recoupement yi ci am moom day doy waar de. des mm. ñu génnee xaalis xaalis boobu ñu ne yow foo ko dugal mu ne maa dugal naa ko waaye. Euh, xaw ma maa ngi doon xaar conseil d'administration xaw ma def lan mais lu ne lu ne c'est-à-dire que xaar xaaral. <laughs> sa saa liiral ko. ko doon décaissé na saa a gis loo xam day waar da waaru daal naka la ñuy bokkee mbir man ak yow ñu bokk ko bokk ñun ñett ñun ñeent ñi ngeen jiital ma rek man daal su ma xëyee daal génnee mi ne. ah cuur yow génn nga 1000 francs de ma ne ah léegi nag après pourtant man sama soxna moom kii c'est-à-dire que yooyu noonu te yow dañ ne ne booy génne xaajin ñëpp ah. waaw mais aussi boo su ma koy génne leen ko sax mu dugal ko ma ko si seen yëf loo xamante ne ñun ñoo ko moom après su ma gisee sax ma ne ah ngeen baal ma de mhm. gisoon naa fi benn projet bu taxaw bu urgent mu gis ne buñ ci defee 5000 mën nañu jural 10 000 su ma naroon wootee réunion day kii moo tax ma génne ko voilà bénéfice bi voilà et cetera xam loolu moom yàqu yàqu ma damay defar mais bu dee damay jël di rek cent francs mille francs deux cent di di faj samay soxla donc vraiment c'est un habit de biens sociaux léegi nag bu dee yow ki nga ko sekkal di Moustapha Ndiaye jàpp na ne yow da ngaa luubal lu toll ci ay milliards et milliards mais dans ce cas moom bu la porté plainte soo demee yoon aussi doo mën génn parce que day fekk moom li nga xamante ne tous les éléments fondés pour te mettre pour t'envoyer en prison en passant par le par le procureur et malheureusement c'est ce qui est arrivé à à Samuel Sarr et ce dossier mais am na mhm. Sénégal daal juste Sénégal moom gëm naa duñ dem vacances. moom duñ fa dem. vacances mhm. parce que lu ñu am ci dossier moom bëri na mais ni màggal Touba. waaw mhm. ah, quand je bëri na mooy rëy na. y a beaucoup de dossiers yoo xam ne dañ ko war a leer beaucoup de dossiers. beaucoup. saa wolof ñu terminer ci loolu. et ça n'arrange pas les hommes d'affaires. Samuel Sarr <laughs> mandat ah de bi comme li Thion wax peut-être luñ mënoon xaar la. waaw xam naa ne dossier bi day ñun ba ñuy jóg di wax di artu lii lañ xamoon tey lépp day delluwaat ci mag Sall rek mhm. daf ci am ñoo xam ne nag bokk giñ ci bokk ñun moo ñu may sens saa su nekk ma koy wax muy le Moustapha Ndiaye bu dëgër bopp boobu ak euh, Abdoulaye Dia Sénico ñooñu dañ leen ci yaatal pour parce que am na yoo xam ne boo ko bëggee def da seet ñu ñu wóolu xam nga am na ñoo xam ne seen der dafa dem ba yàqu muy ku mel ni Samuel ak ñeneen ak ñeneen ñi nga ci gis Arouna Dia c'était franc trop flagrant même mm-hmm. ñoo xam ne seen cartel mooy waa Café du li li li Moustapha Cissé di faral di wax ci ga <laughs> ci gerte gi naan ñu jikoo Café du Rome mm-hmm. wala ñenn ñi nga xam ne comme genre Xaadim Baloog Afrique wala ay dóorage ñu ji ko fii téeru bi wala Radisson Blu mm-hmm. loolu nag bi mu amee pour rek waxuma sax li nga xam ne moom la Sénégal waroon a taxawee léegi ñu ñëw ci mbir mi koo xam ne da ngay na seq mbir mu am conseil d' administration jiitaluñ la de non danga nga nekk DG bi mais dafa am loo xam ne bu ñu koy def pour ñu war ko taxaw man bu ma amoon fii ay part am na décision xam ne bu ñu koy def conseil d' administration moo ko war a saxal yow DG nga doog a dem doxal ci yooyu mais bu ñu la waxee euh, gars yi gis ne affaire dafa tey xel ñu jël benn cabinet Mazar cabinet Mazar boobu bu lay laaj non lii dafa fekkoon ne gars yi ñoo ma ko teew mosu mosu ñoo teew cabinet manque de ñu mu maanaam gars yi mën a teew saxal ko wala même buñ la laajee nga ne loolu loolu lañu ñi nga xam ne loolu lañ waxante woon moom lañ te buñ paree doo mën a justifier mu toll ci huit milliards cent soixante dix million amaan na beneen un milliard cinq cent boo xam ne. boobu demaguñ ci ci bi ñu porté plainte nii boobu bokkaguñ ci parce que boobu moo beneen notaire bu mag yor sant bu baax ndeysaan moom xaalis bi ci ñoom la des mais li am solo mooy ay nit bu ñu bokkeek ak yow mbir nga ñëw jël ci alal ji dépensé am beneen société buñ teg nga dem fay ko ci bi ñu paree wax la nga ne non nii laa ko dépassé damaa gisoon ne lii moo gënoon a baax wala lii moo doon doxal mais loolu sa yoon nekku ci. Mhm. yow dañ laa jiitaloo dafa am décision yoo xam ne yaak ñi ko bokkal la. 5 ku nekk am ci 15 pour cent. Senelec am ci 20 pour cent yow ak ñooñu la loolu nag bi mu amee mat na at ëpp na at Macky Sall dana leen dafa wax da leen ne bu mu jëm kaw Moustapha Ndiaye am ak moom ñetti jotaay. saa yu Macky Sall waxee ba mu jëm kaw mu ne ko loolu question d'honneur la xaalis la dañ ko seq dañu taxawal nangam dafa war a leer yàlla may ñu sens nag ba ñu yegg si fii mën nga ne affaire privé la mais mën nga ne affaire d'état la parce que autorité contractant bi muy Sénélec état Sénégal la waxuma la dara waaye li ñu tabax noonu fu ñu ko tabax ci suuf Senelec ñi ci participer liggéey ci trente cinq ingénieurs waa Senelec Sénégal am na xaalis bi am na expertise bi am na suuf si loo xam ne da ko beneen bi nag muy li ñuy wax conflit d'intérêt tamit man ci nekk Samuel ni mu bokkee fee ak ñoom am ci action 15 pour cent noonu la bokkaat te même Euh, nombre de méga 315 méga la dee beneen cent méga boo xam ne séq na ko ak Turquie muy euh, karamul bi nekk fi bateau bi nekk fii di war a mhm. ravitailler Paossips bi nekk bi am huit échappement yi eh, échappement yi fii ci euh, Bel Air kii bi port bi boobu est-ce que bii doomu Sénégal yi bokk dox ak bële dox bu ci gën a arrangé Samuel Sarr pourtant mi ngi ci ñaar yépp maanaam man ak yow ñu teg benn société war ci liggéey ak euh, Feeling Dakar man ak Cheikh Anta ba pare boobu jural ma man maa jural koppar yu bëri ma amaat beneen société boo xam ne man ngi ko séq faaku cuun ak kee boo xam ne 15 pour cent laa ci am te société bi ma am quinze pour cent su paree dana wàññi intérêt fële te bële il est plus nébuleux sax que boobu xam nga ñaata la ko Sénégal di fay par at 193 milliards Sénélec mi ngi dépassé par at plus de 400 milliards Sénélec mbooleem ko producteur indépendant yi li liñ ci am mooy 74 pour cent 26 pour cent képp la Sénélec yoral boppam lii ci des yëpp dañ ko koy jaay di ñu facturer ñun sénégalais yi léegi bu Samuel Sarr seqeeg turki yi fële. ba pare am beneen bu mu seqaat ak sénégalais yi te bi mu seq ak sénégalais yi bu paree bu turki bi dootuñ ko soxla est-ce que sax lii mu def nii du sabotage pour affaire bi bañ a gaaw a sotti attention maanaam comme li France di def euh, Sénégal am CFA ba pare gars yi war a teg ko mu taxawaat moo tax mbir mi nii. Mm-hmm. benn mbir la mu fi nekk nii rek mel ni garab mais dafa nar a amee yeneen bànqaas maanaam li cuun wax ne. Euh, justice duñ dem vacances mm-hmm. dossier bi daf ci bokk dafay maanaam boîte à Pandore la mm-hmm. li ci am solo nag état na fexe ba taxaw ñu récupérer waat société bi mu nekk euh, sénégalais waxuma rek bu nekk ay action mais ñi ci bokk ñu jukki leen man loolu mooy bi ma njëkk a tànn mais atte bor ak fay Samuel dafa tooñ jàppoon ne am na fu mu daan làqu régime bi changé na taxaw nañ fii amul jalgati wala par parlo wala nangam ak nangam. li fi am malgré nag li ay journal doon bind yëpp di gonfler parce que saa yoo gisee mel ni maanaam moo nekk ci dëgg. te ñëpp ku lire li nga xam ne mooy rapport bi naa la ko yónnee après li nga xam ne carrément waa def na leneen lu dul jub. dama tànn yem ci biir rek ne ma wax la yeneen link yi nga xam ne moo nekkaat ci. dinañ am euh, mm-hmm. euh, parquet bu tribunal bu Dakar. Euh, Euh, requis un an de prison dont six mois ferme et une amende de contre Moustapha Diakhaté pour propos jugés injurieux et atteinte la paix.